aca final ehe monument monument war na ko daan na ko monument yóbbu na lambu ja ehe ñagas nee na ko e monument final yi gaaw nañu waay jande jaga puale sekare amaka nyegas